هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي ثمد وباقي سبحانه سكن في وواقي ننسان تتي فدل سنتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الدنيا waxe kàddun lalwal ku nekk wéy na te seetlu xayru ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu na wa ma muhammadun illa rasul xalxalal lin mu doon dunya suran kalak taxoo di yaale xayrul wara waa makka dun ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makki yoo dellu si yóbbu ahmadul mbakki du bàyyi sunu maam ceerno ibrahima kële xaadim ci lay maxduma yooyu yaari xew wi ko yetteel fa daarul mu fi xew wi le di ki ala seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafima أبكي على خليل إبراهيم ما دل جولي أسمى قديما جنتك جايما